Sénégal gis nañu ne li nga xamantene ne mooy pressing yi ma ngay ci Grand Yoff boutique bu ñu dugg ñu ci ëpp dañoo bañ a wax waaye taxul benn yoon ñu daldi ndax di astu tàllal nañu ko suñu micro moom nag moo ngay expliquer métier un pressing naka lay doxee léegi liggéeyu pressing métier

parce que xam nga tamit temps bi du maye nga bëgg a xëy dem liggéey ji waa ci bëgg a gérer sa ba pare bëgg a fóot day xaw a metti parfois nga dajeeg ñoo xamante ne moom mooy loolu dañuy sàggan trop ci seen ay yére mais parfois na nga dajeeg ñoo xamante ne moom dañuy set mhm, yére yi du benn problème mais am na yenn saa yére yoo xamante ne moom boo ko génnee da ngay bëgg saa jooy parce que dafay tilim yére yi day tilim parfois ñu defal ci ay sous mooy loolu alors que ne boobu si bokk normalement parce que machine du pour loolu. soxna si moom nee na moom ab saalum saalum la loolu rekk taxul benn yoon mu wàcc àndam ndax day fóot ba tey. ah man de sama gis-gis xam nga ni ku nekk daal ak euh, fi nga toll jamono ji ndax am na ñoo xam ne bu ñu xëyee fajar la ñuy xëy nag dem liggéey bàyyi seen kër yi noonu seen jànq yi am na ñoo xam ne dañuy choisir pour dem yóbbu ci pressing pour ñu fóotal leen xëy na ñàkk jot la ak seen liggéey moo leen ko mayut daal am na ñoo xam ne tamit xëy na tayal la am na ñoo xam ne tamit ñu ngi fóotal seen bopp yaa ngi dégg man nag saalum saalum laa ba léegi maa ngi fóotal sama bopp samedi ak bi lay obligé maak samay doom ñu fóot bam set paase teg man ci loolu laa nekk waaye ñeneen ñi tamit taxut du tayal mbaa kii xam na ñàkk jot bi rek ak liggéey bi xëy na moo leen tax ñuy yóbbu seen yére yi pour ñu fóotal leen ko waaw man dama tàmm di fóotal sama bopp ba léegi su ma demee ba temps mayatul ko tamit mën naa yóbbu sama yére yi waaye heure bi moom euh, maa ngi fóotal sama bopp waaw fóot moom dafa métti moom ndax day jàpp yaram day jàpp jigéen loolu moom am na moom fóot moom dafa métti ku am moyen bi ku ku am kii bi da ngay yóbbu ci mu fóotal la waaye nag man maa ngi fóotal sama bopp ndax amna na yo yoo xam ne tamit obligé ko fóotal sa bopp dina baax da da day tax daal yére yi dina dina baax man sama yére lo la ci lo loolu laa ci choisir pour fóotal sama bopp. waaw man sama loxo yi mom laa gën a wóolu waaye waa pressing tamit ñu ngi def lu set ndax sama benn mag euh, Binta. pressing la kii la yor mom la yor. te day fóot ba mu set wax dëgg yàlla waaye man moom damay fóotal sama bopp. ñaar ñi moom nee nañu ne ñàkkum jot moo waral jigéen ñi di dem ci pressing yi ngir fóotlu. du question teel sax des fois moom ñàkk jot la am na ñàkk jot am na ñoo xam ne teel la technologie bi dafa avancé ba tellement jigéen ñi léegi amatuñu jot boobu dañuy teyal encore xam nga loo loo demee ba tàmm na loo tàmm moom jeex na doo toog si mën dara. waaw jigéen ñi moom vraiment fóot fóot bi daal moo baax si ñoom li même suñu li di liggéey suñu ñëwee samedi dimanche bi suñ ko liggéey war nañu fóot parce que loolu dafa baax seen yaram day dëgëral yaram day sur day tax seen sang di circuler bu baax a baax waaw loolu de moo gënoon moo gënoon de de wér gu yaram ak gudd fan rek laa si gis li maam yi woon def wér yaram ak gudd fan déet wax ma ñu bàyyi mais quand même bon am na jour yoo xam ne nag vraiment war nga toog si kër gi fóot am na jour yoo xam ne nag comme da ngay liggéey yaa ngi wut yaa ngi liggéey amoo jot waaw war nga wut min daan mais samedi dimanche moom xam ne liggéeyoo demoo fen war nga simb fóot pour yaram bi yëngatu waaw ah man de à mon avis ma maa lay fay ci nuyoo bi aussi man de na fi avis euh, jigéen bu ñuy fóot it euh, bëreetuñu en tout cas xale jigéen moom xam naa ne defe naa ne li ñuy fóot bëreetuñu sama classe bi nga xam ne nag dañoo xaw a njaboot léeg tu obligé nga fóot tuuti donc fóotkat yaa ngi fi donc sa yere yu baax yi nag moom franchement da ngay préférer yóbbu ko ci pressing ba parce que duñ la ko lakk dina la ko fóotal fóot bu set duñ la ci toqal eau javel donc loolu lépp ngi si paquetel la ko ba ba mu rafet boo dugalee sa armoire tamit du poussière donc loolu lépp tax na euh, dem si pressing bi daanaka moo ñu gënal am na ci yenn yére yoo xam ni tamit da ngay jël fóotkat comme yére xale yi mbaa nga ut machine à laver donc pas plus tard que tey jii rek sama yenn yere ba ma ko waxee fóotkat bi na ko fóotal ma dafa na ma dafa ni nga daan def fóotal ko sa bopp xam naa dafa jàpp ni dama ko yóbbu pressing donc bu xaw si gis boppam ak wax ji tamit da ngay ñëw génne leen faute ñu ne la tuuti na euh, faute bi dafa bëri ba pare bëgg ngeen fay leen lu nga fay lu bëri donc yooyu yëpp tax na bon doo sawar trop ci fautkat bi donte léeg-léeg di nga leen jël mais bon da ngay xam euh, sa limite daal da ngay xam sa limite mais sa yëre yu baax yi moom wax dëgg da nga koy yóbbu pressing faute bi moom wàññeeku na ndax dafa metti te mënul ne boo njabootee nag di nga fa tuuti di nga fa tuuti mais li ëpp da koy yóbbu moom dëgg-dëgg

ñii di liggéey euh, ci pressing ñoo ngay ak i passé yi ci journée utilisation machine à laver yi doon fréquent fii ci population bi ñu ci progressivement li nga le lavage manuel